léegi nag Macky munul woon génn noonu réew mi ah fii dégâts yi fi am dafa bëri Macky amnistie bi ñu bari dañ foog ne amnistie bi pourra passer mais Macky Sall amnistie bi pour moom ak kaawam la attention Macky bu jugoon na day génn noonu dëkk bi mais leneen munoon na am loo xam ne du lu ñuy wax ci plateau. Macky non Macky munul def lu nit ñi leen def yëpp ba pare na day dem yoonam noonu attention. nit ñi lan la def <laughs> non baal ma am foofu rek. mënul def lu nit ñi liñ def lépp après na leen bon yéen a ngi nii seen wéy gi nii j'en vais moo tax amnistie bi ngay xam lees waxul. mais comme Ousmane Sonko moom ñu tàmmal révélation. dana ko bind man nag man bu ma doon moom buñ demee ba mi mandat deux ans damay publier sama benn partie mémoire indi ci li xew diggante cité kër góor gi tribunal Cap Manuel. man bu ma doon Ousmane bëgg nañ xam non bu ma loolu dama koy publier veille élection yi laa koy publier buñ nee élection yaa ngi nii di ñëw ma publier ko buñ nee jàpp nañ élection député yi date bi temps la ma publier une partie wu mémoire. est-ce que du da koy waajal sax cheikh bi doo waxantu de. mun na nekk mun na nekk mun na neel en tout cas dana def effet bu doy li ci xew bëri tractation yi ci am bëri na première yi sax du ñi ak Jeune Afrique xam naa ci lu bëri. moo tax ñiy bélbélu naan protocole cap man des fois ñu wax maree du nag garaaw wala dara yàlla ma dimbali ku jege première dame wóolu ma de woo ma wax ma lépp. mais li ñeneen ni wax ndax tey jii mën nga ñu ko confirmer. peut-être que gën ñu ci am li nga xamante ne moom moo di ay xibaar que ni lu weesu loolu yëpp. Hmm. moom président Macky Sall pourquoi mu décidé woon jox leen li nga xamante ni moo di nguur bi. c'est parce que xam na ni ñi bu leen ko joxee ñii dinañ lajj alors que contrairement à Amadou Ba bi nga xamante ni c'est un vrai homme d'état mm-hmm. ñu ko joxee Sénégal dina ko doxal na mu ko war a doxalee. non du loolu Macky li tax mu jox leen nguur gi mooy ñii a gën a dal xelam ginnaaw gi Macky sax joxu leen nguur gi mais pourquoi mu préféré tëgg élection yi. génn leen mooy ñii wa gën a dal xelam ginnaam ka ah mais ni mu ko defee kat jox nguur gi lañ ko mën a tuddee. ndax da leen génnee da leen da leen da leen génnee ci ay ci ci jamonoy campagne. Mm-hmm. mu xam ne ñii bu ñu génnee. mais teewul nañ ko ba pare xoolal est-ce que xam nga Macky génn gim leen génn dafa wàññi seen score xam nga loolu. sondage yi daf na su Basirou desee ci kaso gi li ma lay wax nii képp ku nekkoon ci cabinet Macky Sall liir nga sondage li ma wax doo ko teggi daf na su Jomaay desee kaso intention de vote day grimper de 3 pour cent ndax sénégalais yi dañuy voter maanaam vote bi dañ koy yokk ci kii mi ngi kaso. mooy injustice bi mooy capital de sympathie bi dafay yokk Macky génn gi mu génne Diomaye dafa wàññi sax euh, li nga xam ne mooy score bi mu waroon am da doon grimper de 3 pour cent bu desee ci kaso bi donc Macky nguur gi mi ngi woon déjà ci loxo ñoom Sonko te Macky xamoon na loolu et occidentaux nañ ko ko y compris les États-Unis mais su fekkee ni leeroon na ko ne nguur bi mi ngi woon déjà ci loxo ñoom Sonko. Mm-hmm. pourquoi mu génn leen sachant que ni bu leen génnee itam dañuy génn. ngir bañ ñu tëj ko. bu ñoom Sonko gañe woon te nekk kaso yow leer na la ni li xew keroog du am gisee palais bi grand na nga def naka yaram bi du am yow leer na la ni bu gars yi gañewul réew mi kaso sénégalais yiy génn dem fekk Macky Sall ca pale ba jël ko yóbbaale ko kaso génn jomaay dugal ko fa teg loolu leneen lu dul jur un président élu bu ne ci kaso bi tension bi mu doon jur moo arrangé wul Macky foofu Macky dafa joué sauvegarde mooy naa rawale sama bopp ak sama njaboot nga tiim sondage xam ne sa principal adversaire am ci kaso bi day gagné élection yi lebal nga ko lu mais lu benn homme politique dundut ci dëkk bi bu génnee nga dugg. mais lu tax président ama Cheikh Bara danaan wax naan <laughs> benn formule bu retardu Macky moom xam na ni fi mu toog Diomaye fi toog. man Cheikh Bara mooy garabu garabu. ah waaw moom daf ko mun moom bu baax sax. Hmm. leer na ko ni chaise bi Bassiroo ciy toog. waaw dina nga mën a ruube waaye man fii nga may fekk man xam na ni chaise bii Euh, xam naa Cheikh dana dafa yow émission ndax ngeen juboo du ñëw non dana ñëw loolu dana non loolu mission laa xëy ñeme ma yombul de waaw loolu loolu danaa fexe ca safar gi dafa fekk nekk à distance loolu danaa fexe ca safar gi boo ñëwee Touba nga def ak Cheikh Bara émission ndax ngeen am jàmm yéen ñaar ñiy commenté sax dafa fekk ñu dafa fekk ñu sore ma rek waaye bu jàkkaarloo ak man <laughs> su boobaa Macky li mu play mooy man na mais yow mais Penda gars buñ jëloon réew mi ci kaso gi loolu catastrophe la ci Macky ñi mandal kenn du génn rapport ñëpp kaso lañ jëm duñ leen sax jugé ma kiy joué mooy désamorcel fexeel ba tension bi ñaaw nga ci ay fexeel ba sauver minimum ma ki loolu rek la def jéem a rafetal jéem a sécuriser élection bi indi son homme de confiance mooy Matar Cissé ku leer ko ni il est incorruptible du ko jëndee maletu xaalis du ko jëndee benn intérêt foofu Macky wéet na moom lalu la di wax naan ca fin wam ja Macky wéet na. mais Cheikh bi sàmm ba yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa ngi dikkaat ci benn ponk. Mm-hmm. tout le temps yaa ngi naan Macky dafa def li pour surveiller ses arrières. Mm-hmm. lan la yi war a def ba tax mu war a mun a mu mu war a surveiller ses arrières. ñaata quatre vingt et quelques xale fi dee. dafa tàkki. est-ce que moom kese la ñu war a. non a non mais moom mooy moom mooy le patron de l'exécutif le chef suprême des nous sommes d'accord. Macky mooy commandé lépp lu xew ci réew mi même bu dee moom defu ko tey bu yàlla ja tawee fenn léegi xale yi génn. na jamono d'accord mais ku mel ni Bougane dafa jàpp ne Ousmane Sonko moom mooy responsable bi. moo tax ma gëm ni famille détenue yi dañ ko war a porter plainte. c'est des propos très dangereux xam nga Bougane danaa tijji paragraphe boobu rek tëj il est mal placé pour critiquer Sonko et j'espère que tey grand bi nga Ngagne dina ko ko fàtteel xam nga lu gis naa ni keroog bi ñu toogee mën na ko dana fàttali Yérim fàttali na ko ko lii Yérim waxoon. mais Pape Ngagne ñun nag lay <laughs> ah, gis naa loolu. Mm-hmm. Bougane dafa toog ci MNF. Maïmouna Ndour Faye. na ko Ousmane Sonko mun na ko waaw mun na ko c'est une philosophie du nit. yaa ngi dégg li may wax. Mm-hmm. Penda. Mm-hmm. dafa toog àddina ñëpp di ko déglu. mu ne Sonko c'est une mu ne lépp lu mu am jox na ko senegal mu ne lenn rek lu Sonko dese woon Sénégalais yi muy jëmmam te mi ngi leen koy waaj a jox ci lalu hôpital. waaye yow nan ngay fii nit ba traité ko de philosophie wax ne kooku def na sacrifice ultime joxe na bakkenam joxe na këram maam këram mi ngi doon waaja tas. Mhm. ne kii mi ngi waaj a joxe li nga xam ne mooy bakkanam ngir Sénégal mais ngir xëy bis di jouro au lendemain. Mhm. bëgg peindre kooku comme la diable mais nit ñi dañ lees na la saa yow est-ce que waroo dem ci psychologue mu xool la. Mhm. bugaan bu doon nante. mën politique xarañ du attaqué Sonko ni mu kay attaqué neneen la koy attaqué. nga ni bu doon. bu doon nante xarañ non du attaqué nii Sonko yow yaa taxaw àddina di la dégg nga ne Sonko c'est une philosophie juróom may mun a dafa tiit ba na ko nii Sonko c'est une philosophie vidéo maa ngi fi. na jox na lépp Sénégal ba di leen waaj a jox ba kenam xam nga li moo tax comme polémique dafa am ci bu point ci c'est-à-dire dafa am li nga xamante ni moo ñeel pàcc boobu je pense que mm-hmm. moo tax dañoo war a gaaw leeral mm-hmm. nga xamante ni moom moo di boobu le mbir li ko Mimi Touré préconisé voilà loi d'amnistie bi nañ ko xoolaat su ko defee rek ñu gën a mën a leeral li ci am réellement parce que pour ñenn ñi les responsabilités sont partagées am nañu jàpp ni ñenn xale dañoo génn pour Sonko ba tax ñu dee mm-hmm. am ñeneen ñu jàpp ni Macky Sall moo nekk derrière il est le il en assume l'entière responsabilité il faut ñu leeral ko. d'autant plus que ñoom actuellement ñoom ñooy ñoom ñooy yore réew d'accord ak yow dañ ko war a leeral. oui mais loi d'amnistie peine fu ñu koy abrogé assemblée. Mm-hmm. amoo fa majorité. boo ko yóbboon Abdou Mbow lay xaar ci buntu beeg ay crampons bal bu ñëw mu kàjj ko. mais vu que ni ñoom yoratuñu nguur kay xëy na ñoom tamit seen intérêt dina ci leeral. ñoom kaso lañ jëm di ñoo doon recruter nervi yi ci ñoom di. déedéet ah ah yow xam nga ni ñoon du ñu la ilaha illallah boo dégg xola bés boo déggee ne ñu ngi abrogé loi d'amnistie guddi googu dana am ñu daw jaar ci frontière ak gaal yi pour génn Dakar parce ñu bëri après kaso lañ jëm gis nga barki démb vidéo Pape Ablaye Touré bi mi ngi tudd tur. Ah, du ma ci ñëw. seetaanuma <laughs> fexe ko rek fexe ko tur la tudd diw diw ndax mën naa wax diw diw. yooyu xam nga yooyu yooyu penda yooyu beneen affaire man daal li ma gëm. Mhm. mooy loi d'amnistie bi. danañ ko laal ak duñ ko laal. Mhm. dossier mars deux mille vingt et un juin deux mille vingt trois moom xam naa dinañ ko laal. ñi fi rey danañ ko rendre compte ñi ñu rey danañ ko leeral ñan ñoo leen rey danañ ko leeral. Mhm. loolu moom man gëm naa ko. Guy Marius Emidiène. Guy Marius. <laughs> l'actuel ministre de l'éducation nee nañu dafa dem seeti ji ki nga xamante ni moo di monseigneur Benjamin Ndiaye. Mhm. sur instruction de son Sonko. Mhm. ginnaaw coowal bi nga xamante ni amoon na fi fan yii ba Bellatier génne daal di répliquer ci lu ñeel li nga xamante ni moom moo di voile bi. Mhm. Euh, il est important aussi tamit de préciser benn affaire dama déglu ko mel ni Abbé Alphonse. ci RFM euh, matin émission bu mag boobu animée par le grand journaliste Babacar Fall. sama grand que je salue nee na. du voile bi kese moom mooy problème. Mm-hmm. nee na dafa am xale yu nga xamante ni. dañuy muuru. Mm-hmm. dañuy ñëw seen établissement yi. Mm-hmm. mais dañ fee ñëw bëgg fa indi beneen doctrine bu bokkut ak ñoom li nga xamante ni dafa nekk seen ay règlement. nee par exemple xale dañuy ñëw di muuru yi baadu. si classe bi nga ne du ma toog ak par exemple Cheikh Ousmane parce que góor la. xam nga loolu yéen am na yenn ibaadu yoo xam dañ koy éviter. du ma nuyu diw du ma toog ak moom wala boo génnee récréation ngay berok yooyu te ñoom dañoo jàpp ni loolu mun na indi beneen coppite ci peut-être li nga xamante ni ñoom noonu lañ bëgg doxalee li nga xamante ni moom buñ seen établissement donc ñu jàpp ni peut-être voile bi kese la ñoom voile bi kese du problème ci ñoom xam nga man loolu léegi kiraas yi daa dem fay coow wala xam nga man loolu je peux être bien placé pour wax ci man fréquenté naa privé catholique euh, jàngee naa privé catholique durant quatre ans euh, collège Sacré-Cœur. maa ngi nuyu waa Saint-Michel bu baax. gis nga jàngee naa fa te pourtant c'était pas évident euh, bu ñu indi lu xewul bees man yàgg naa gis ay élèves yu daan muuru ci école yi mosuñu indil problème. yàgg naa gis ay chrétiens yu daan takk croix ci école yi mosuñu déranger au contraire ku nekk da nga daan respecter foi wu ku nekk ñun loolu lañ xam màggee Sicap nga xam ni bëri na ay famille chrétienne yu nekk fo bëri na ay famille capverdienne yu nekk fo li ëpp ci say xarit.